alaikum, téléspectateurs de euh, 5 TV alors nous ngi ici avec si nga xam ne bi seen émission kaddu askan wi euh, askan exclusivement si Ousmane Sogo et Wote. wi nga xam Wote le 28 le 29 ak le 30 daal di jëm procès ma ki nga xam nekk encore une fois après li nga xam modi 13 14 15 tey jii nag Ousmane Sonko wootewaat na le 28 29 ak li nga xam modi le 30 le les askan daal di exactement maram pour génn si mbir bi daal fi seen daal di jàkkaarloog ak li nga xam nekk moo di takk der que Ousmane Sonko ñu mën ko daal di condamné si yooyu dañ nga xam nekk moo di procès ak Mame Mbaye Niang si biiru diffamation waaye itam ñu des daal di mën candidat présidentiel 2024 exactement alors

dama gis ni réew bu ñu yeggee ba nga xam ni ñu ko jiite ñu ngi xoote xeex kon ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo programme pour xoote jàmm dañ leen war a fekk si loolu te as Sénégal léegi dañoo toll boo xam ne ku ne duma xeex tim ñi leen ba daanu sa kaw te ñii ñoom loolu leen gën a bëgg nguur gi ñu toll nii ñoom ku jàkkaloo ñoom leen bëgg ndax projet Mame Mbaye Niang bi ñin trois jours yi nga xam ne Ousmane Sonko woote na ko yëpp ñu fas yéene ko génne jàkkaarloo ko ak moom comme ni mu ko waxee gassa gassa ñu fas yéene ko defee noonu. mais du mën a ay conséquences parce que gis na ñett euh, deewoo neen par rapport ak ak 16 euh, mars bi ñu génn est-ce que ñu koy bàyyi xel. waaw loolu yëpp garaawut ku dee ku nekk rek am na ñeneen ñu des. ku dee sa yaay juraat. ku dee sa yaay juraat mën na nekk waaye man du ma ko waxee ku dee sa yaay juraat ku dee ku nekk am na keneen kuy taxaw. ndax xare Badar leen jëm xare jeexagul de xare ngi doon di tàmbali fii Sénégal waaw. alors ba léegi rek si série de manifestation bu Ousmane Sonko bi fii Sénégal ah gara ñu lay nuyu. ñu fay. alors euh, gatsa gatsa wala matsa matsa. gatsa gatsa kay pare nañ pour manifester fa saa saa bu ñu Sonko wooyee pare nañ pour dem manifester wu. mais moo tax ngeen wu tamit. ah dañuy xeex sunu suñuy suñuy droit parce que Macky Sall ni mu yore réew mi moom. jaadul ndax gaa yi fi jaar jaar yore wuñ ko woon noonu ah, Sonko mi mu bëgg a jaay doole te ñun moom dañ ko jox bopp jox ko bët bëgguñu mu jaay ko doole moo tax. Ah, jàpp nañ da koo bëgg a jaay doole. waaw da jaay doole mag moom ak Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Macky Sall mooy base bi. pare nañ fu ñu woo ñu dem buy si ko saabu bu génnee ñu ànd ak moom incha allahu rabbi. mais ñi si faatu woon ak aussi euh, ñi si yàqule woon. loolu moom ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax. di ñaan ñi ci génn àdduna suñu borom yërëm leen jéggal leen xaaral leen àjjana ñi ci yàqale nag ñu ngi leen di masaw bu baax a baax di ñaan suñu borom wutal leen leneen lu gën loolu waa ñaa bëgguñu yàq moom yàq moom santuñu ko kenn mais nag nañ jug xeex suñu droit bu manifester bu ñu wootee manifester ñu jug def ko ji kii bu ko defee ñoom homme de tenue yi daan ñuy encadré buñ ko manee loolu mooy indi jàmm ji waaw Alors, ah si li nga xam euh, manifestation Ousmane Sonko yi grand ñu lay nuyu. waaw ñu ngi leen de alors euh, ñu fekk le fii si foire exactement Vous euh, ngi le 28 29 30. waaw ñu ngi le 28 le 29 le 30 ñu ngi le 3 avril Alors, ñu ngi alors vous a koy waaj 14 15 16 conséquences est la xam tam Sénégal est-ce que tiitu ñu daal demaat de yooyu dañuy xam circonstance.

boo ñëwee da ngay gis mbalit wala poubelle wala euh, sachet du fa nekk dañuy raxas ba mu set wicc dem ci njëkk ak teraanga mais heure bu ñu bëggee def suñu manifestation ñun ñu toog ba ci jour bi ne autorisé nañ ko wala duñ ko autorisé mel ni ñun nekkuñ ci réew boo xam ne amuñu suñuy droit. da ah, leen daal. waaw ñun ay ñun ay démocratie lañ. Ah. ba pare te réew mi réewu démocratie la ku ci nekk buñ la bëggee jaay doole yow war ngaa woote résistance te ñun résistance boobu la ñuy woote. merci beaucoup amna solo bu baax a baax a baax baax jaajëf donc mi ngi noonu donc euh, ñi daal di euh, yaakaar ni jamm fa mu ñew si réew mi waaye tam yeen aussi daal di yaakaar ni gassa euh, gassa mu ta daal di ñàkk par rapport ak ak li nga xamné ne que moo di réew mi c'est important ku su nekk rek ak na ko daal di gisee alors dañuy daal di wéy ni xol exactement aussi réaction ñeneen ñi par rapport ak ak jeune yi nga xam Ousmane Sonko daal di woote du 28 japp le 3 avril fi Sénégal. tur bi naka la. Ibrahima Khalilullah. Ibrahima Khalilullah ñu fekk la fi exactement ci foire alors Sonko wootewaat. ginnaaw 14 15 16 mu daal di wootewaat 29 30 ak li nga xam ne moo di le la mooy sa gis-gis boo dee wootee bu euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. ah man daal li may wax moo ne réew mi ñoo ko bokk waaw lu si mënul am daal ñi def ko si tekk ak tey bañ a yàq bañ a taal réew mi suñu réew la du réewam Sonko du réewam ak Sall. man daal loolu lay woote. est-ce que jàppoo tamit jaay doole lu ñu bëgg a def Ousmane Sonko ba waral mën a ñu génn. mais bu dee loolu la tamit am na nuñ ko mën a régler ba mooy di toj di taal di yàq man daal yàq gi si laa d'accordul wax dëgg fa yàlla d'accordu ma si yàq nañ def lépp daal waxtaan daal mooy indi lépp. bu ma sañ yaa ngi bëgg daal ñu waxtaan ko waxtaan ko waxtaanu. waxtaanu biir jàmm am si réew mi parce que jàmm si réew mi mooy suñu jàmm ñun ñëpp. Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yep, nous ñu Sénégal si anam yo mieux naturelle. naturel Puis bi des day parce qu'il baax si yaram tayit il leen sawarloo jus bi oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si ya gune ak mag nak nekk si emballage civilisé te wóor ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito Ju, fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison